te pourtant ay américains dañuy jóge foofu ñëw di seetaan si suñu làmb yi mais pourquoi loolu yëpp ñu ngi koy gis ñoom xam nañ ko saa yi ñu tëggee làmb ñu gis ay tubaab toog di seetaan mais pourquoi pas ñoom duñu du ñu gunge làmb ministère tourisme lan la ay tubaab lañ ñoom voilà directeur commercial société yi fi nekk yëpp c'est des c'est des sénégalais. mais est dem ngeen def ay contact ak ñoom wax leen dañ bëgg ngeen accompagner ñu. xam nga dafa neexul nga dem toog si ay salle d'attente di xaar koo xamante ne ëpp la diplôme sax muy lay jaay affaire doo ko def promoteur yu si bëri seen dignité moo leen. pousse ba nga xam ne yenn yi duñ ko def. waaw mais mais mais pas dem salle attente d'attente di xaar affaire yooyu mais ngeen def ay circulaire ay correspondance yoo xam ne da ngeen koy au niveau de euh, niveau de leur secrétaire secrétariat après loolu li ci des nag. boo demee ñu defal la décharge ba pare nga jox leen ñu dugal ko ci tiroir loo ci mën. mais ki yéen ngeen def li leen war a def rek. soo mu ci def man damay def business plan xool société yu baax ma yóbbu ko fa. mais du don parfois dina am retour parfois ñu proposé ma loo xamante ne ay caaxaan laa koy jàppee parce que tey làmb du caaxaan man du ma jël ay sponsor ñu ñàkk fayda soo may da nga may fay xaalis bu baax ma liggéeyal la liggéey bu baax nga am rupture laajteel ñu ma jot a liggéeyal. et que ci loolu euh, mën nañu dugg ci li nga xam ni tamit euh, moo jëm euh, ci cachet yi mhm. ndax tey mën nañu wax ni ñu ci bari ñu ngi déplorer comme quoi que bon promoteurs yi. Euh, mbër yi li ñuy laaj comme cachet dafa xaw a énorme ñii ni bon promoteurs yi amuñu sponsor yu leen accompagner moo tax léegi mënatuñu décaisser yenn somme yi colossal yi nga xam ne dinañ ko mën a joxe bon ci loolu est-ce que yow en tant que promoteur jeune promoteur nga dugg ci làmb ji dugg ci euh, li nga xam ni mooy géew promoteur yi aussi tey nii mën nañoo wax sa combat bi nga taxawal nii mu diggante Modou Dia ak euh, Thiat mën nañu wax génn nga ci xaalis. génne naa si xaalis mais sénégalais yi mën nañ leen may tam leneen. mooy que tey jii avant communication bu may def mais déggoo ko mooy nee naa que tey su ma atteindre vingt mille entrées ñoom ñaari yëpp naa leen may ku nekk 4x4 Kia Sorento PABC automobile xam nga loolu est-ce que ñoom sénégalais yi am nañ dégg-dégg boobu ak supporters yi surtout ndaxte ñoom jàpp naa ni li ngay déplorer nii ñoom ñaari mbër yi li nekk seen gannaaw suñu jëndee suñu jëndee loolu loolu day taxaw kon kon kon problème de sensibilisation moo am. kaay ma la benn affaire sénégalais bi xam nga lu mu gën a sawar mm-hmm. gis prince bu def émission bi mu toog xool ay humeur am ak ay état d'âme bind commentaire saaga ko taf-taf nga am vingt mille vues on a besoin de vingt mille supporters yu ñëw may ñaari mbër yi 4 loolu laa wax. mais mais man la loolu laa la c'est de l'eau à boire pour des lutteurs parce que man je sais je vous parle en connaissance de cause mu jël li muy drainer di ko indi stade ëpp na loolu. ak ñi toog ci kër gi di ko seetaan ëpp na loolu. est-ce que lébu waaw est-ce que lébu yi laay laa de. déggoo ma de est-ce que lébu yi yéene nañ ko 4-4 laa wax. mais bien sûr que oui. waaw nañ ko 4-4 kon na leen leer ni si entre contrat bi huissier dina ñëw constater loolu wax na ma engagé wu que su ma atteindre 20 000 billets Modou Dia dina am 4-4. 4 dina am 4-4. waaw mais mais mais loolu xam nga déglu ma wax la euh, ci caat dañuy euh, kii nu mu tëdd. prince dañuy prince prince dañuy. te waxtaan wax dëgg sa la la. loolu on n'en disconvient pas les possibilités son la comme le soleil du jour mais problème bi mooy lan est-ce que information bi jàll na ba man wax naa ko korok cat euh, wax naa ko waaw waaw man maay Sénégal 7 mais ci kaw man Séné information bi mi ngi noonu mais comme ni mu jàll tey si ñun ñii xañ na mi ngi commencé daw combat bi des na ñëwagul ñeneen dinañ si jot supporter yi Modou dinañ si jot supporter yi Thiat dinañ si jot. ak lu làmb dinañ si jot. mooy man mënu ma leen fen mënu fen sénégalais tey HB communication moom mooy jaay moo ñuy defaral billet mooy ñëw scanner billet yi mooy machine yi ngay gis ci porte bi machine billet bu ñëw da koy comptabiliser un deux trois quatre mille deux mille HB communication balaa lamb bi jeex dañ leen di woo ñu ñëw taxaw ne on a fait quatorze mille billets suñu defee dix neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf billets du ma leen jox dara mais fu ñu defee vingt mille vingt mille billets ñaari mbër yi am na seen 4 4. waaw léegi xam nga 20 000 20 000 yi. ah 20 mm-hmm. 000 billets yi. moo jar 10 000 ko. ah <laughs> loolu wóoru ma. non si nañu waxante dëgg rek. problème arène ba nii benn yoon la Moussa Fess booy ñaa bu muy bëre ak Lac de Guiers moo jëm mi ma lay wax nii tey nii 10 000 personnes yu ko accompagner jafewuñu ko caat euh, naka noonu. parce que caat caat ngi nekk si zone bi nga xam ne ñaari tali usine HLM. Mm-hmm. Hmm, biscuiterie yi. Mhm. comprendre nga. ak seen mbokk yi nekk ci àll. NGB seen yi nekk ci mhm. nga xamante ne caat seen mayo lay sol. Mhm. mais musuma gis waa NGB ñëw si lamb caat te chaque jour mu sol mayo nee naa ko sama làmb soo fa it soo fa indee sa mayo NGB te gisuma waa NGB di nga ko simi si lamb ji. ñoom suñu bëggee xam nga tey sénégalais déggoo li ma lax wax ñoo mën a def mbëri yi mbër yu mag booy ñu ay mbër yu ndaw tam ñu ngi seen âge mi ngi dem Messi il a combien d'années mooy champion du monde ballon d'or cinq fois. ñoom Modou Lo dañu am chance dañoo mbapat mbapat mbapat ñoom Balla Gaye dañoo mbapat comprendre nga moo tax bi ñu waree exploser 21 mars 2010 euh, kenn du ko fàtte. tey jii Modou Dia ak Thiat war nañ mën a def loolu. bien sûr parce que loolu sax duggoon naa si ak ñoom ñoom ñaar yëpp ku si nekk nii yaa ngi teg sa bët un jour. si roi des arènes. te ni ma leen di dimbalee pour ñu am 4-4 yooyu dinaa def concert si 14h midi dinañ ibi porte stade 14h ba 18h concert la. Aba ah no stress dina ñëw waa Rire tribunal dina ñëw Sidi Diop Thiat euh, Sabel Momo Dieng Paama ñoom ñëpp a Gise dinañ ñëw prester. bu ko loolu léegi ñoom dinañ def communication avant TFM mm-hmm. la ñuy liggéey ñëpp dinañ ci jot. Mm-hmm. comprendre nga ñooñu su ñu defee seen communication woo seen i nit peut-être ak ñooñu ñëpp. Mhm. ak mbër yi seen quelques petites personnes. cinq cars yu ñuy indi. ak mbëri yu ndaw yi. Mhm. ak amateurs yi peut-être dinañ atteindre vingt mille. bien sûr man j'y crois quoi franchement tey gis nga. foog ñu defante ak ñii di ñëw si dëkk bi di épuiser suñu euh, suñu suñu suñu kii ressources yi di dem di yóbbu suñu xaalis mooy Total mooy effage Sénac ñooñu comprendre nga il nous les met quoi avec Orange c'est des français qu'on se dise la vérité c'est des français ñu ngi ñëw jël suñu xaalis di ko yóbbu léegi tey mais nag waaw baax na si ñun parce que ñoom ñu itam ñu bees ñu fi ne mhm. ay firi yëpp ay sénégalais ñoo fa nekk directeur bi méng la sant mhm. même si y des actionnaires yu tas mhm. pro euh, kii promobile mbakkiw fay moom ko jiitee moom tam boo xëy na dina xëcc ci côté lislaam mais société moom dangay génne génnee sa sa sa sa appartenance mm-hmm. murit bi da koy teg fële mm-hmm. l'islam sax da nga koy jël mm-hmm. dund ko intérieurment nga xam ne Sénégal nekkul ay catholique wala ay murit rek a fi nekk sooy liggéey da ngay teg liggéey xam ne c'est un pays laïque tu travailles avec les Sénégalais donc ñooñu bu ñu complexé nañ sponsoriser làmb ñu defal leen lu ñu defal orange ñu dépassé orange ñu changé suñuy puce dama ko mu jeex. Mhm. parce que tam ko se dise la vérité orange je les ai proposé business plan boo xamante ne c'était du béton on s'est mis dans une table man awa awa awa bi fa nekk mhm. ak buso mais tu sais pas le problème day am. tey jii ma wax la benn affaire na ko wax mu jeex da ngay gis directeur société boo xam ne dafa am gel nopp ko gel bi nopp mbër mu bañ làmb bi mu jeex affaire bu grave lii moom man gis naa koo lii moom scoop la lii gis naa koo xamante ne daa am gel gel bi nopp mbër bëgguma tudd sax mbër bi mu bañ làmb bay def ay scandale di wax ay bêtises te mbokkam a ngi bëre ndax gel bi nopp na mbër bi gel bi nopp na mbër bi muy jooy di def lu ne comme si loolu moo nekk si Sénégal nag yow da nga grave ah. xam nga da wax wax ji mu jeex quoi président Macky Sall dafa wax wax nañ si bàyyi xel dafa ne njege maar yi dañ doon topp étudiants yi dem léegi day topp mbër boobu ba léegi làmb ji daa sooxee kenn du ko wax mais loolu dafa am njëriñ bu si ne. mais eh, na leer de waxuma président daa am gel de président Marème Faye soxna Marème Faye mooy jabaram kenn du ma tëj ci erreur ma ay mbokk xam naa seen titre yi ngeen di def bu leen ma titreel dara luy ndirox lool mais président Macky Sall mhm. dafa war a xam ne moom si boppam avec tout le respect qu'on qu'on lui doit je vous lance un appel solennel monsieur le président le Sénégal a besoin de la lutte la lutte c'est le maire support de com la lutte day stabiliser dëkk tey jii lamb su amaan bombardier di bëreex euh, Tyson wala muy bëreex Yékini mbedd yi doo fi gis kenn moom la ñuy waxtaanee six mois avant trois mois avant grand place yeeg ñëpp day wàccee seen stress mais xoolal feebar yi nuñ bëri si dëkk bi làmb amatul Balla gay toog ba heure bi amul combat te mu jóge si victoire bu rëy si Modou Lo. léegi ne yow moo wax la sànq làmb ji dafa am problème nga ne amul problème. non xam nga tey jii problème esprit la bopp la man gëwuma problème innama juste restaurant la ñu wax. neex neex boo gis nakari nakari moo siy topp nakari nakari boo gis neex neex si topp. yàlla yàlla bay sa tool. yàlla yàlla béy sa tool moom sooy toog naa problème amul problème da nga teg sa bët chaque jour di ko gis moo tax man su fexe problème bi jóge fi ñun suñu yoon nekkul si sponsor wala keneen ñi ngi tëgg ah lu mën a am ala kuli al ñi ngi tëgg Abdou Fall ngi tëgg Assane Ndiaye ngi tëgg Fallou ngi tëgg te ñu sponsor kon suñu amoon sponsor toj fi est-ce que rusluwul ci làmb saison bi ubbi ba fi mu toog fii ñuy dund toujours naa way dana baax di si la fin de la saison te ku ne xam ne ni grande affiche yi dañ koy organiser ay cinq mois six mois avant benn affiche lañ fi am te ba léegi dara wóorugu ci. muy Ama jàpp neen ki ko tëgg tëgg tëj. tëj waaw muy Ama ak Modou yow loolu ban jàngat nga ciy def. parce que tey jii am na erreur ah suñu nee que du ñu ne Luc Nicolas moo nekk si yoon am nga affaire de justice dafa sew moom il est condamné mais il a commis l'erreur de donner des avances sur des sachets yi ñëpp gis ko ça se fait pas même si tu <laughs> yaa ngi nekk ci sa yoon normal quoi ça ne se fait pas dafa dafa c'est pas élégant que nga jël cent millions def ko si mbuus nit yi di ko gis loolu cuune bi dafa nekk keroog si côté yëpp si côté mbër bi si côté. loolu loolu est-ce que c'était pas pour influencer certains lutteurs bon d'approcher davantage li nga xam ni mooy mooy arène bi. c'était mais mais mais man je pense que une somme si nombreuse waroon nañ ko mën a def sous sec def ko ci enveloppe glissé ko. bon moo gën di ko wane nii waaw voie moi yooyu. xam nga du voie moi Sénégal moom metti da ngay gis ku sañ sa ba rafet romb ñu ne ah dañ ko waa abal nga yor oto bu rafet dóor kat la de nga taxawul combat joxewul avance loolu la ñuy lijjanti ëllëg ñu xool positif lu positif si li muy def mais dañuy xool lu négatif chaque jour peut-être que c'est ce qui poussé mu def yëfu jeune. <laughs> lu dafa def yow cuune foofu mais bon fu mu nekk nii mënuñu def lu dul ñaanal ko yàlla génne ko foofu ñuy lancé appel tam état bi gracier ñu ngi gracier ku nekk de war nañ ko mën a gracier de parce que tam loolu mu tëgg noonu dafa rëy. ñu ngi participer ci li nga xam ni mooy euh, comment dire euh, li nga xam ni mooy emploi des jeunes mi ngi ciy joué rôle ku mel noonu boo ko jëlee euh, daal di koy lakk jant bi y un problème aussi. moo tax ma ne la am na ñuy xeex làmb Sénégal. même si bon c'est un problème de justice ñun loolu justice moom géré wuñu ko comprendre nga mais ay ñi mu amal problème tam duñu ay sénégalais dañoo appuyer ñoom tam. xam nga li ñu tombee waral ay gaf parce que problème am bi yàgg na bon euh, ñu bàyyi ko noonu bon. kenn kenn waaw kenn waxul kenn waxul juste mu taxawal. combat ama ama Modou Lo rek ñu ne ko ceex jugal ko. ñu def yëfu cuune ñu tam il était sur liberté conditionnelle liberté conditionnelle c' est conditionnel tu es sur la condition de la justice donc il ne devait pas faire ça il ne devait même pas organiser de combat mais bon par bëgg làmbam làmb feebar la boo xamante ne su la duggee ñun suñuy liggéey yëpp moo moo gën a sedd lamb di làmb da lay rey làmb il m'est arrivé de perdre cent millions si làmb man am si dettu vingt neuf millions di ko fay ba tey yore lu si dërëm mais bor. lu nekk dégg naa ko Sénégal façon commentaire bu nekk commentaire mais président de la république sax xanaa su <laughs> état la yor mais avant état yor na bor ñëppay am bor mais na nga mën a fay.